أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر السحور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبورا ثم الصلاة والسلام على نبيه القائل من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu borom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dooli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi ñu ngi leen di ziara di leen baalu àq di nuyu waa koñ bi koñ bi nga xam ne miin nañ ko trop ndax daanaka kër gi ci ginnaaw fii laa yaroo maa ngi ziare sama tante Badiane Fat léegi léegi maa ngi ñëw duñ ko nuyu di yeesal sunu kóllëre ak moom parce que sunu waajur moo ko doon denc di ziare Oustaz Kande ak mbokk jullit yi di ziare sama sëriñ Ousmane wax naa léegi mbokk yi su ma géntoon ne moo ngi fi ba waxtu wi kon du jar ñu muy am ñaari waxtaan benn rek doon na doy parce que ñu ngi doon jëriñu bu baax ci li mu doon wax mooy falsafatu siyam mi ngi doon wax koor di nettali diggante Muusa ak Firawna xissa boo xam ne man duma ko suur mukk ndax mu ngi wax ne Firawna yàlla mu ngi ko alage ci benn soldaar bu ndaw mooy ndox waaye xam nga lan moo ci am solo foofu mooy keroog bi yàlla di alak firawna ci biir ndox mi firawna dooleem fan ngeen ko takk ndax xam ngeen ne ban daraja la eggoon ci doole ci bis boobu la yàlla di wax ci étape boobu la yàlla di wax yaayu Muusa bi Muusa juddoo nekk liir yaayu Muusa yàlla ne ko jëlal xale bi dugal ko ci ndox bi fa alqiihi fil yammi yàlla mu ne Moussa firawna fa nabasnaahu ñaar yëpp yamm la kële mu ngi ci kattan kii mu ngi néew doole kon mbir mi fan la nekk lu ñëpp war a xalaat liir bu ndaw bu juddu léegi yàlla ne yaayam laxas ko ci ay sagar nga def ko ci kees nga dugal ko ci ndox mi mu daal di def noonu keroog ba yàlla di labal firawna ñaar yëpp yàlla mu ne yàmm la ñaar yëpp ndox la kon kan la kii am kattan kii nekk liir waaye xoolal yàlla lu mu wax yaayu Moussa wa inna la raddu dinaa la ko delloo loolu mooy pas-pas loolu mooy ngëm kan tey ci ñun mooy am doom ñu ne ko jëlal doom bi nga def ko ci kees waxuma sax kees ci paan nga dugal ko ci biir dex gi ci biir géej gi kan ci ñun fii jëlal sa doom nga dugal ko ci bërigo ndox bi rek laa wax bërigo ndox kan ci ñun fii ku koy def na yëkkati loxoom waaye loolu mooy imaan ak yaqiin ak kóolute ndax xam na kii wax ak moom mooy yàlla te yàlla nee na ko dinaa la ko delloo est-ce que yàlla delloo na ko wala delloo kon suñu waxtaan bi mooy arrujuu ila allah mooy dañu war a dellu ci yàlla jot na de jot na dellu ci yàlla waxtu wu ñuy war a dellu ci yàlla jot na sëkk ci tey Sénégal fi mu toll ci yàqute ak mbon ak salte ci wàllu woo ko natt nag jikko yu yàqu diina ju yàqu lépp lu yàqu dara baaxu fi waaye jot na ñu delluwaat ci yàlla waakin as su'al mooy kayfa nar kayfa yarjiul insaan ila allah kayfa naka la doomu aadama di delloo ci yàlla tuub hal bi kasaratil istigfaar faqat est ce que day toog rek suñ ko nee dellul ci yàlla rek mu daal di ut benn kurus boo xam ne nekk na junni per naan saafurulaay saafurulaay saafurulaay du mun a wax sax astaghfirullah waaye saafurulaay ñaata màgget ci ay góor ak i jigéen ay xale yu góor yuy wàcce seen tubéy yor ay kurus takk ci baat yi takk ci dënn yi takk takk takk koo gis lu muy wax saafurulaay saafurulaay saafurulaay saafurulaay saafurulaay saafurulaay mooy lan lan mooy saafurulaay moo tax dañuy wax ba sonn mbir yi du dem suñ la joxee numéro téléphone tey su la Macky Sall joxoon numéro téléphone mu ne la problème boo am rek boo ma ma rek la ko numéro baa ngi nii ndeysaan nga juum ci numéro bi benn chiffre nga ñëw nag ba sa kër allahu akbar kaay leen ñëpp ñëw nga ni Macky nee naa ko woo nga dugal kërëj kërëj ñu ne la numéro bi ngay woo baaxul numéro bi nga dugal baaxul ndeysaan léeg-léeg nga nga daw rek song sa portable ne nii rek machine bi ne la numéro bi nga dugal baaxul muy sama sa sa yaakaar tas bu la yàlla waxee waxal astaghfirullah nga nekk fa naan saafarullaay saafarullaay saafarullaay est-ce que yàlla bi ngay woo dina la wuyu yàlla du la wuyu mukk kon baat bi naka la ñuy delloo ci yàlla wa hal hunaka a'mal ukhra fi lxayr وهل هناك أوقات معينة أو أماكن معينة للرجوع إلى الله تعالى والتوبة est-ce que dafa am ay jëf yoo xam ne buñ ko defee rek dellu ci yàlla wala dafa am ay waxtu yu ñu war a dellu ci yàlla wala dafa am ay barab wala ay heure wala ay minute yu ñu war a dellu ci yàlla loolu bu ñuy wax kayfa narjo ila allah da kon dañoo war a laaj laaj yi naka la ñuy delloo ci yàlla naka la ñuy delloo ci yàlla doomu aadama dafa ñàkk jom rek waaye daa warul jóge ci yàlla sax ba naan dafay dellu waroo jóge sax ci yàlla ba naan da ngay dellu ci yàlla gis nga sunu borom dafa baax moo tax mu ñu indil waxtu yi waxtu koor pour ñuy dellu siwaat ci moom mu ñu indil julli pour ñuy dellu siwaat ci moom mu ñuy indil ajjuma ba ajjuma pour ñuy dellu siwaat ci moom mu ñuy indil aj pour mbooleem lu ñu yàlla sant cheikh bi wax na ko léegi mbooleem ibaada yu ñu yàlla sant dellawu doyewu ci dara lu dul ibaada boobu ñu jële ci taqwa ya ayuha nnas ibudu rabbakum alladi xalaqakum walladina min qablikum laallakum ibaada la mbooleem ibaada julli taqwa la lay indil koor taqwa la lay indil hajj taqwa la lay indil zikr mboolem jaamu yàlla yi taqwa la lay indil mooy ragal yàlla lan mooy ragal yàlla mooy jëfe lim la sant bàyyi lim la tere loolu kese mooy ragal yàlla wax la léegi buñ tegee fii benn balance ñu ciy natt suñu bopp di peese waaw loolu la doomu aadama yi manqué mooy jaamu yàlla bi ngay def nga toog ba ci yàgg nga ne waaw man journée bi tey est-ce que dem naa julli ji jàkk journée bi tey est-ce que jàng naa alquran journée bi tey est-ce que tudd naa yàlla waaw loolu la waaye yow doo xool dara da ngay bombardé di dem rek loolu moo ñu indil problème moo tax jaamu yàlla yi dara du saf pour ñu delluwaat ci yàlla tabaraka wa taala ixwatal iman inna baaba tawba maftuux la yuxlaq hatta tatluu sams min maghribiha buntu tuub buntu delluwaat ci yàlla dañ koo ubbi yàlla du ko tëj mukk lu dul jant bi xëy daa di fenke sow fii mooy Bagdad damay laaj fii mooy Bagdad bu ngeen xëyee suba jant bi fan lay fenke fii ah kon yéen waa Bagdad jant bi fii lay génne fan ah man damaa dégg kenn waxul dara di fan la fii ah alhamdulilah fii lay génne bis bu ñu xëyee mu nar a nekk yawmal qiyaam nga xam ne ku tuub yàlla du la baal jant bi fii lay génne ku toog ba gis jant bi génne fii nag nga ne xaaral ma firi mees yi xaaral ma dindi xeesal bi e xaaral ma yëgal tubéy ji xaaral ma dindi faccal bi xaaral ma dindi dangal bi yàlla ne la c'est trop tard hay haat tëj nañ buntu bi ndeysaan xam nga nu muy mel su koy su keroogee ci yow ku gàddu biyam war a dem États-Unis tërërër yi daw daw ba yegg si ci avion bi mu daw ndeysaan mu seen avion bi di départ di décoller di dem te mu ngeeg passeport am mu ngeeg lépp su keroogee dina dina raw lu mel noonu ci yow kon waxtu tuub jot na balaa buntu bi fii ñu koy tëj mu ne wa hinaha la yanfau nafsun imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha xayr su keroogee bis boo toogee nekk ci ay caaxaan nekk ci xumb-xumb adduna yii ñuy wax yàlla fii kërëj kërëj ku nekk di wootewu ñi naan dañuy gis yàlla ñi naan ñooy yàlla ñi naan ñooy rakku yàlla léegi ñi naan léegi-léegi laa rakkorosé ak yàlla ñi naan léegi-léegi la jibril toogoon fii kii naan moo démb maa ngi moom ñoo doon reerandoo ku toog nekk ci yooyu ba bunt bi toll fii malaaka bi dugal caabi ji di ko tëj nga daw na ne xaaral ma dellu nag su keroogee di nga xam ne c'est trop tard su keroogee di nga matt sa ñaari loxo yawma yauddu zalimu ala yadayhi keroog di nga matt fii ci àdduna ku am problème ñaata loxo ngay matt ndax mën nga matt ñaari loxo benn loxo wallahi su keroogee ñaari loxo ngay mat lan ngay wax wooy yaa waylata yuuxu père su keroogee nag loolu olof yi naan béy wéy na mbuus c'est trop tard ixwatal iman wa yuxlaq hada al bab mata kañ la ñuy tëj buntu bi kañ buntu bi nga xam ne saa yu ko yàlla tëjee ku tuubati du la baal ku julleete du ko nangu ku woor du ko nangu ku joxe azaka du ko nangu kañ la loolu jar na xam kañ la ñuy tëj buntu bi mooy bis boo nekkee ci sukuraat di waaj a dee foofu yàlla naan kalla iza balagatil hulquuma wa antum hiina idin tanzuruun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun keroog bu la malaaka yi wëree nekk cortège malaaka nekk juróom benn malaaka bi wër la jóge ci sa bopp ñëw ci sa tànk ne la ya abdallah tuftu laka masariqa al ard wa magharibaha falam najid laka sharbata ma in tashrabuha eh yow ponkal mi yow mi doon fëgg dënn di bonde da ngay gis tey Sénégal ku jékki-jékki naan nii di génne dënn ñu naan nii quoi waxee waa ji dafa ceene rek mu naan nii ba pare boole ci dox yoo xam ne ah man oh yenn saa yi sax da nga yaakaar ne ci télé nga nekk di seetaan waa ji ni muy doxee fekk ndeysaan dara sax yaa ngi naan waay waay na duuf waay na na gën a dëgër sax yi ci biir suuf si naan allahu akbar ñu ngi kontaan ñu ngi zibile daal waa ji moo duuf cëy ba mu yegsi allahu akbar looy ngandal loo xam ne sax yi ñoo koy lekk yaram bi lu mu dëgër dëgër lu mu diis diis loo ko nooyal lu mu ritax lu mu rafet lu mu takk sax yi ñoo koy lekk wala sax yi di ko lekk ngeen foog am na seen benn waykat bu ko way mu ne sax yi ci biir suuf tey dundee néew ku ñu suul fii wala malaaka bi waxee loolu ndox dootoo ko naan ndox ndox dootul dugg fii keneen malaaka bi daal di ñëw nee na yow jaamu yàlla bi bu dee góor bu dee jigéen mu ne yaa amatallah wër nañ asamaan ak suuf penk ak sow amatuloo tibb boo lekk fii lekk dootu fi jaarati ponkal mu daan xëy di ndekkee ginaar reer waat ñu indi la nu ne nga toog raxas sa ñaari loxo ñu tegal la fi sarvet nga tiim affaire yi ndeysaan tey munu lekk yàpp munu lekk caap ceeb ci kaw lal bi lañ ko tëddaloon ñu ne wàcce leen ko lal bi suuf see ëpp yërmande ɓe ndondoma ha dow ɓe tellin ma leesongo ko an sodno a wonta hen lelo goɗɗo leloto hen an a wonta lelo e leesa ngo kenen mo ci tëdd wew dootoo ci tëddati ndeysaan yaa ko tëddoon de lalu duubul lii dara bu jidda éponge u cinquante cinq xaw ma épicerie xaw ma yooyu la nit ñi di tiitaroo bisa ngi ñëw dañ la koy wàcce ci suuf ngay tëdd ana yére yi ana ganilaa yi ana anamu dañ naan ƴeewe toon wutte gooto koye fuɗo ɓornon mo ɗum ina wuli sellen fof ko ɓen no mbubu bu ndaw bu oyof ngen bonnu ko ñuttude ko faari mbaam ñu daal la koy solal ndeysaan ñu lay upp nag Hmm. hande de o semori mbe ndax o yari seeɗa meew waaw tey de tanena ndax naan na tuuti meew allahu akbar hande de o semori sabu o jooɗima seeɗa moom de tanena tey ndax toog na tuuti allahu akbar beneen malaaka ne tell ñëw ne la ya abdallah تفت لك مشارق الأرض ومغاربها فلم نجد لك خطوة على وجه الأرض تخط بها asamaan ak suuf wër nañ amatuloo foo teg sa tànk su keroogee nag lan mooy xew mooy bu njëkkatee tànk bi day daanu wal tafati saaqu bi saaq bu ñu yëkkatee loxo bi loxo bi day daanu su yëkkatee tànk bi tànk bi day daanu yàlla mu ne wal tafati saaqu bi saaq yàlla mu ne kalla ida balagati taraqi wa qila man raaq wa zanna annahu alfiraq waaye wal tafati saaqu bi saaq léegi nag keroog nag xëcc nañ ruugi ba fii nag waa ji nag léegi nag bëgg a tuub tuub jeex na ndax bunt bi tëj nañ ko ruugaa ngi fii ñaar yii bunt bi tëj nañ ko xëcc nañ ruugi ba fii soo bëggee tuub ne yàlla léegi bàyyi ma ma julli bàyyi ma ma woor bàyyi ma ma c'est trop tard mënatul nekk ruux bi buñ ko xëccee ba ci put gi sunu borom subhanahu wa taala mu ne wa laysati tawba lillazina yamaluuna sayiat hatta ida hadara ahadahum almaut qala inni tubtu l ana ndeysaan am na benn waay xamuloon julli xamuloon yàlla xamuloon yonent xamuloon alquran xamul dara ku ko musa wax ne yàlla rek wax na la lu bon benn bis benn waay ne ko yow te nga jaamu yàlla xanaa xamoo léegi mën nga fee dee rek sa soxna keneen ñëw takk ko mu daan ne ko wallahi bis bu ma dee woon kenn ñëw ne day takk sama soxna damay génn ci bàmmeel bi ñëw nangam waa jooju saaga saaga bu bon ndeysaan waa jooju yàlla daal di koy natt mu daal di feebar bi mu feebaree ñu yóbbu ko principal ñu faj ko ba waa principal sonn mënatuñ koo faj ñu ne yóbbu leen ko France ñun suñu pexe jeex na sama xarit bi ma doon nettali xissa bi mu ne biñ ne avion bi naaw na Sénégal mu ngi ñëw France mu ne ci aéroport bi laa dem toog di ko xaar mu ne bi mu wàccee ak sama waa ji ni ma ko xamee woon ni mu ponkale woon ak sama waa ji nu mu jantale woon ak sama waa ji nu mu rafete woon ak sama waa ji bopp bi ni mu sëqe woon kawar mu ne mu wàcc ma gis ko ci puus puus mu ngi jeex takk bopp bi amul kawar mu ne keroog laaj dama jooy musuma jooy mais keroog jooy naa mu ne ñi daal di koy puus dugal ci ambulance yóbbu ci hôpitalu France mujj na moom waajooju ndeysaan muy onk naan jàpp leen ma ma julli fekk c'est trop tard jàpp leen ma ma julli fekk c'est trop tard mbokk yi gis nga doomu aadama yàlla ñu bàyyi nii rek ci suturaam ñuy lambar lambari di jaay doole di jaay reewande di jaay dangiral di jaay ay bakkaar yu bari ku nekk di futteeku def lu la neex yàlla may la sutura rek bàyyi la di la temm nga defa ne yow rëcc nga fekk yàlla daf lay temm inna allaha la yumli al abd hatta iza axazahu la yuflih yàlla da lay bàyyi rek mi ngi mel ne kuy bu ñu takk buum bu gudd ñu bàyyi ko muy cëppi cëppi wala fas bu ñu takk buum bu gudd ñu bàyyi ko muy cëppi cëppi rek di daw lu ko neex mu tëb yenn saa yi day daw ba caag daan ne léegi nag mën naa rëcc ma tëb barrière bi génn day dem rek kooku ne ko vif xëcc ko mu daal daanuwaat mu xam ne kon demut yàlla noonu lay def jàmm yàlla da lay bàyyi rek nga nekk xale bu góor di cëppi cëppi di bonde di nekk xale bu jigéen wala ngay def loo neex di cëppi cëppi di tëb yàlla di la seetaan rek waaye bis bu la nee nuus waaw ñu daal di baas sa buntu kër hatta iza axazahu laa yuflih moo tax ñu war a tuub war a delluwaat ci sunu boroom wallahu tabaraka wa taala baasitun yadahu billayl liyatuuba muusiu nahaar wa baasitun yadahu binnahaar liyatuuba muusiu leyl xoole yàlla moo baax ma nga malaul ala arsh arrahmanu ala al arsh istawa waaye mu ngi tàllal ay loxoom naan waay waay kuy tuub kan mooy ñëw ma baal ko kan moo may ñaan ma may ko ah kan mooy tuub rek ma daal di koy baal bëccëg yàlla day tàllal ay loxoom daan anañu bëgg ma baal leen anañu su guddee mu tàllal ay loxoom anañu bëgg ma baal leen ndeysaan suñ demee ba guddi gi xaaj guddi gu mujj sulusul leylil axiir mu ne yanzilu rabbana ila samai dunia yàlla day wàcc ñëw ba asamaanu premier wàccaay boo xam ne moom boppam la méngoo kenn xamul kayfiya bi naka laak déedéet loolu yàlla la moom yàlla wàcc foofu naan ana kan moo may woo ma wuyu ko ku may ñaan ma may ko ku may jéggalu ma jéggal ko jamono boobu ana sénégalais yi ñoo ngi ci soirée yi ñoo ngi ci télé yi xoolal tey rek match Barça ak beneen équipe bi nu mu tudd Bayern ak Real ak ak ak ak xoolal match yooyu rek tey sénégalais yi da ngay gis benn sénégalais bu nekk fii di jooy parce que dañoo gagné Barça man booy tey duma réer quoi lu tax doo réer parce que Messi dugalul bii yow yaag Messi lu ngeen bokk est-ce que Messi xam na sa maam yéen ñi ci biir baas bi fii góor ak jigéen mag ak ndaw ku fi Messi xam maamam nekk ci loxom kon lu fi jaar ñu gañe Messi ngay jooy ak di indi ay problème waxtu julli jot nga dégg jàkka ji hayya ala salaa ay waay kaay julli hayya alal faloo kaay leen ci texe bi nga naan non ba marché bi jeex quoi non ba pa bilal bi day da ko ne quoi dañ seetaat suñu bopp oustaz wax na ko léegi nee na kooru jamaa kooru jamaa waaw démb dañoo amoon iftar mbokk bi nee na démb iftar bi kenn ñëwul lu tax parce que dafa amoon match quoi ndeysaan kenn ñëw lu tax dafa amoon match quoi moo tax gars yi bu amee match duñu génn quoi allahu akbar match match match bu mat baa ngi ñëw de match bu mag bi wallahi moo ngi ñëw mooy buñ la génnee sa kër dugal la ci morgue bi futti la sang la sang la yeew la teg la ci kanamu jàkk ji julli ñu yenu yóbbu ba ci buntu armeel yi gas ba mu xóot ñu dugal nit ñi ñibbi marché bi commencé yàlla mu ne yaa abdi tarakuuka wa dafanuuk wa fi turaabi dafanuuk walaw zallu maaka ma nafauk falam yabqa laka illa ana wa ana alhayu allazi la amut te match boobu amul entraîneur de amul remplaçant amul amul keneen sa diggante yaag yàlla la rek ndeysaan nañ leen nañ leen delluwaat ci yàlla ar rujuu ila allah yàlla ni mu baaxee wa yafrax bi tawbati abdihi hiina yatuubu ilay bu doomu aadama toogee ci digg néegam di jooy su jóot di jooy tàllal yàlla ay loxoom di jooy yàlla day kontaan ci moom day wax malaaka yi xool leen sama jaam bi xam ne ne maay boroomam ma nga ne toog di ma jéggalu seede leen yéen malaaka yi ne kii jéggal naa ko même ay bàkkaaram bu toloon ne vague géej yàlla mu ne baal naa ko baal naa ko tee ñoo dellu ci yàlla tee ñoo dëpp ñun waa Sénégal yoon bi njaar baaxul de yoonu caaxaan même diine bi ñuy woote sax diine bi foog moom ay sabar ak ay tabala fecc guddeeg bëccëg laa ilaaha illallah dëgëral dëgg guddeeg bëccëg rek di fecc góor ñi ak jigéen ñi di fecc guddeeg bëccëg fan la yàlla wax fecc leen ana aaya bi ci alxuraan ndax dafa am fecc leen da ngay gis ñu takk ay rajo laa ilaha illallah di yuuxu timis ba minuit ba quatre heures du matin fecc kese loolu ban diine la xanaa jànguñu afa hasibtum annama xalaqnaakum eggal leen aaya bi eggal leen aaya bi wa annakum ilayna da ngeen a yaakaar dama leen bind pour fo ndeysaan benn sëriñ dafa ñëw kër kër taalibeem mu fëgg bunt bi rek ndeke so taalibe bi daa organiser soirée ci biir kër gi soirée xamul woon tey sëriñ bi day ñëw mu ubbi rek mu gis sëriñ bi rek mu tiit allahu akbar sëriñ rek mu taxaw mu delloo bunt bi mu taxaw diggante bunt bi ak sëriñ bi sëriñ mu ne ah lan la mu ne dama laa seet si mu ne waa déedéet déedéet sëriñ tey doo mun a ñëw doo mun a tey du ma la mën a recevoir léegi baal ma jox la paas nga delluwaat dix mille la ngi sëñ bi mu ne déedéet ñëw naa ba pare mu ne sëriñ baal ma jox la quinze mille mu ne ñëw naa ba pare mu ne sëñ baal ma jox la cinquante mille kon mbir yow ñëw naa ba pare ubbil mu daal di ubbi bunt bi rek sëriñ bi gis soirée bi rek sëriñ bi daal di ñëw toog jël seize toog rek ñu ne kii waa ngi rajo tëjal kii rajo bi commencé dindi mbax na yi nag sumi daal yi ñëpp ñëw toog nag nga gis jigéen ñi seytaane yi ut ay kol muuru nag ñëw toog sëriñ bi mu ne ah yéen jàngeen alxuraan gars yi ne waaw ñu jàng nañ alxuraan kay macha allah jàng nañ kay mu ne yéen ñëpp jàngeen alxuraan góor ak jigéen ñu ne waaw waaw mu ne damaa bëgg a jàng alxuraan su ma juumee ngeen gàggante ma ñu ne waaw bismillah rek sëriñ bi mu ne wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liyal'abun ñu ne subhanallah subhanallah du noonu de mu ne la la mu ne xaale ma jàngaat wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liyal'abun ñu ne déedéet sëñ bul yàq alquran illa liyabudun mu ne ah li ngeen def nii lan la lan la yàlla wax wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yalabu mu ne li ngeen def nii lan la léegi ñun li ñuy def ci Sénégal lan la du fo kon nañ delluwaat ci yàlla arruju ila allah delluwaat ci yàlla ci tuub doomu aadama na mooy tandiku xamoo kañ ngay dee xamoo fooy dee xamuloo ko mën ngaa tëdd doo yeewu mën ngaa woor du yegg mbokk yi fii nii dañoo wooroon daaw ñun ñëpp yàlla may ñu ren ñu fekk yéen ñi wooroon daaw fekke ren ndax amuleen ñu ngeen xam ñoo xam ne wooroon nañ daaw wooruñu ren am na ñu ngeen xam wala xamula ren ñaata ngeen xam ñu wooroon daaw wooruñu ren wala yéen ngeen yàgg dañ jàpp ne ñun ñii suñu wooree ren dinañ woor déwén te ñoo dëpp delluwaat ci yàlla ndax sikk nekku ci ne moom yàgg-yàgg danañ dem ci sunu borom subhanahu wa taala te bis bu la dee di këlee gis nga moo tax ndeysaan Sénégal dañoo gàtt xel rek te gis ñun duñu jaamu yàlla ñun diw lañ àndal bu dee ñee di nga bàyyi diw dem ci yàlla ñaata nangam ak nangam coow li bari rek waaye xoolal bu dee dikkalee kenn ci ñun su ko malakal mawti jël see amul kenn kuy ñëw ba malakal mawti bàyyi ko amul yaayam a ngi nii to yenn saa nga dégg maire yi ne maay de kay ina hersa gite yumma kono hatta yaade de yahat tan yahat de waaw dee dafay rus bëti yaay loolu la ñuy wax de waaye du teree dee de da ngay dégg ñu ne sànq ba léegi yaayam moo fi toog yaayam daa génn rek mu dee malakal mawt yaayam la doon xaar du loolu de heure bi jotul woon rek su heure bi jotee Samba ngi nii Demba ngi fi colonel a ngi fi président de la république Serigne baa ngi fi yonent baa ngi fi loolu yàlla yoonam nekku ci yàlla faalewul kenn loolu la nit ñi xamul yàlla faalewul yonent faalewul waliyu faalewul muqaddam faalewul kenn moom yàlla ana papaay ibrahima dama leen laaj dama bëgg ngeen tontu ana baay ibrahima azara ma nga safara te yàlla moo ne wattaxaza allahu ibrahim ibrahima sama xarit la nit dina jël xaritam di jël papaay xarit di ko yóbbu safara loolu mooy yàlla amul faale faalewul loolu nu ana jabaram ak doomam ñi safara jàngeen ko daraba allahu masalan lillazina kafaru imraata nuhin wa imraata luut kaanata tahta abdayni min ibadina xoola yàlla lu ma ko mu ne saalihayni ñoom ñaar dañoo baax de waaye ñaari jigéen ñi fa xaanataahuma dañoo trahir seen jëkkër yàlla mu ne ñoom ñaar li ñuy baax baax falam yugniya anhuma min allahi shay xoola ñoom ñaar ni ñu baaxee xoola nuux shaykhul mursalin nuux mooy doyen yonent yi mooy amid loolu ngeen di wax amidul kulliya nuux mooy amidul ambiya sayxul mursalin jabaram ak doomam ñi ngi safara yàlla faalewul ay yi ngeen di wax nii eh xam ngeen firawna xam ngeen firawna ku baax loon wala ku bon la est-ce que gis ngeen ci Sénégal kenn dem ñu ne kee firawna lañ ko tudde adduna bi yëpp ñëpp di nga dégg am nañ turandoo ba mu des firawna wala fii sax di nga gis benn boy ñu ne Michael wala xam nañ ne Michael sax kàccoor la mais dina am benn surnom fii e ndiw fekk kooku bandi la nga gis sax fii ci Sénégal ñu jëlee ko nit waaye kan fii ngeen gis a gis mu romb ñu ne kee Firawna lañ ko tuddee kon kàccoor la woon yéen ñëpp d'accord ngeen ci jabar ma ngi àjjana nu yonent la jabar ma ngi safara kon mbir yi fan la nekk xam ngeen fu mu nekk ci ku topp yàlla yàlla ku ko topp la xam xamul jabaru samba xamul jabaru demba xamul papaay diw xamul kii fii la bokk xamul kii sama taalibe la yàlla xamul loolu te ku dugg bàmmeel xam yàlla xamul loolu firawna du yeneen ku bon la jabara ma ngi aljanna te sato la ko yàlla tabaxal sato yaa ngeen aaya bi rabbim ni lii indaka baytan fil janna waaw firawna la kon nag mbokk yi bu nu bëggee dégg dëgg daal mooy nañ leen dellu jaamu yàlla fal muslim ida araada an yarja ila allah laa yaxtaaju li waasita kama huwa haalu nnaas ngay gis benn waay bu daw ñëw ne la dama bëgg a dellu ci yàlla yàlla laa bëgg a dellu bu ne dawal jëli kurus du loolu nañu delloo ci yàlla yàlla bi tawbatin nasuux tuub tuub bu sell loolu la ñuy delloo ci yàlla tuub simmeeku lépp delloo sa bopp loolu gaa yi naan a tongat hoore ma ha tiiɗa njebbilaa allah a jebbiltoto allah wona jebbiloɗa to goɗɗo koto allah jebbiltoɗa sa yiɗi yettade to allah ngay dellu ci yàlla ngay njàpp njàpp mu normal nga taxaw ci kanamu yàlla nga rukkoo sujuut sujuut ci kanamu yàlla jooy jéggul pour yàlla baal la waaye du toog rek naan saafuru laay saafuru laay laay laay lalaa laay laay lalaa laay laay lalaa la ñuy wax subaana laay subaana laay loolu la ñuy wax nga war a waa ji war a wax allah ko naan jaa kubar jaa kubar jaa kubar luy jaa kubar amoon nañ benn bilaal ndeysaan si suñ jàkk ji chaque jour dama ko koy wax moom lan mooy mission day toog rek bu imaam ñëwee ba toog ci minbar rek mu daal di jël micro bi mu ne ole mu ne jaa imaam mu ne yaa imaam wala mu ne jaa imaam boog sax loolu la bëgg a wax nit ñi koy gis nañ ne jaa imaam nit ñaa ngi xool imaam ba mu dugg toog ci minbar ne koy xam ne ni imaam ñëw na mais il faut rek mu jël micro bi mu bëgg a wax nit ñi nag léegi jaa imaam mu ne yaa imaam yaa imaam mooy yow imaam xanaa imaam da ko waroon wax naam boog maa mooy Sénégal protocole yu ñu yore diine bu ñu bëgg a indi te diine boobu du sariya du loolu mooy njàngale yàlla du loolu mooy njàngale yonent bi alayhi salaatu wasalaam mbokk yi taxawal ci kanamu yàlla yàlla mu ngi dégg say wax yàlla mu ngi dégg say ñaan yàlla xam na la kon dellul ci moom rapidement tuubal tub bu sell comme ni ko borom xam-xam yi waxee cheikh bi wax na léegi ndeysaan téere boobu ñuy xeex ci Sénégal téere bu ñu xeeb la waaye ak am njëriñ muy Laxdari jàngale na fa surutu tawba lu mu njëkk rek lu mu la wax mooy an nadamu ala ma faat waay waay rëccu li nga doon def waay Sénégal nag doo gis ku rëccu da ngay gis paa boo xam ne léegi mu dee naan ceeb te du ma ci tollee booy pàccanga bi ma doon tëmbal non pat d'éléphant yi ma doon sol laajal sa yaay nga dégg mère bi naan te kat nee nañ dañoo tuub kat nee nañ dañoo tuub de ñuy nettali fi mu jaaroon démb ku tuub dina nettali fu mu jaaroon yow tuuboo ku tuub du nettali fu mu jaaroon da ngay noppi loolu dañuy gas pax ba mu xool suul ko bul ko waxati borom xam-xam yi dañuy wax yére boo ko soloon sax da ngay dem lakk yére bi ndax bu ko kenn gisati. wallahi azim damay déglu démb benn cheikh ci Facebook bi muy wax benn xale bu góor boo xam ne saoudien la trafiquant drogue naankatu sangara jaaykatu héroïne mais bandi boo xam ne dafa bandi ba ñëpp xam ko ci avion yi lay naaw di ñëwaat mu tukki 10 ans seen waa kër xamuñu fu mu nekk waaye yàlla moo ko indil benn bis rek ndax yaayam day jooy di jooy di julli guddi di jooy ngir doomam delsi ndeke yaay ji loolu muy julli guddi di jooy di ñaan yàlla yàlla nangu na ñaan bi xale bi dafa jékki-jékki rek ñibbisi kenn xamul ko indi ñëw tuub tuub boo xam ne jàng alquran julli bi mu ñëwee li mu njëkk a def mooy sotti lépp lu bon lu mu yoroon ci digg kër gi daa di woowaa kër gi yépp ñu ñëw mu sotti ci essence taal ko lépp tàkk mu nekke noonu nekke noonu nekke noonu ba sax raw seen waa kër yi nga xam ne fii la leen bàyyi woon ñoom ci jaamu yàlla waaye benn mbetteer rek papaam ginnaaw julli fajar ànd ak moom jàkk ñëwaat toog ba ay huit heures papa ji ñëw di toog ak moom pour waxtaan ñëw fekk ubbi bunt bi fekk ko moo ngi sujjóot papa ji toog ci fauteuil bi di ko xaar xanaa sujjóot bi léegi après mu siggi mu toog rek toog toog lu toll ne conférence bi mu commencé ak léegi mu ngi sujjóot rek papa ji laal ko rek mu daanu nekk dee na bu yàgg rek papa ji yuux boo waa kër gi kaay leen seen frère dafa dee bi muy dee dafa sujjóot benn cheikh mu ngi nettali bu Tunisie nee na dañoo génn xuruj ñu wax leen dem leen ci mbedd mi ngeen woo nit ñi nañ ñëw ci jàkka ji jaamu yàlla ku nekk minimum bëgg nañ lañ indi ñetti nit nee na moom mu génn ku mu dajeel woo ku mu dajeel ku mu dajeel nit ñi bañ kaay ci jàkka ji déglu kàddu yàlla tey bu ma ne woon kaay leen ci jàkka ji Macky Sall mu nga fa allahu akbar léegi conférence bi tas de suñ ne woon léegi Macky Sall lañ ci jàkka ji gars yi nu ñuy nu ñuy def dañuy toog fi continuer conférence wala dañuy tas conférence bi damay laajte dañ koy tas fii ko fi man sax su ma fi bëggee toog man maay njëkk a daw dem allahu akbar góor gi nee na may woo dëgg di xool di xool ba yàgg rek ma gis kenn ku naan sàngara mu ngi man di langar langar yi ma ne ko eh asalaamaaleykum mu ne waaleykum salaam ma ne ko seex dañ laa soxla ci jàkka ji rek gars yi ne ma yow asa won binul xamr kii mu ngi na mu ne ah waaw man aw ma ku ma yóbbu kay rek waa ji sàng naan ka sàngara bi ne ko nañ dem ndeysaan mu yegg si gars yi ne du dugg ci jàkka ji gars yi ne du dugg ci jàkka ji parce que dafa mandi rek imaam bi gis leen rek daal di jóg ne lan la mu ne ma imaam man kii laa indi ñu ne du dugg mu ne na dugg dama nga yóbbu ko mu jàpp mu ñëw dugg mu dem yóbbu waa ji mu jàpp waa ji ñëw taxaw ci sàppe bi dóor ñaari rakk premier rakk def siggi sujjóot toog daal di jogaat sujjóot daal di dee allahu akbar waa ji dafa sujjóot dee te bi muy ñëw daa màndi kon ndeke diine bi ñëpp war a dellu ci yàlla bu kenn wax ne man damaa toll nangam def da ngaa xam fooy deewee xool kii waa ji ci loxo bi la jàpp indi ko mu dee ci biir jàkka bi moo ngi sujjóot moo ngi dellu ci yàlla kon jullit day dellu ci yàlla dellu ci yàlla nag dafa am ay sart awalan an yakuna saahibuha muxlisan fi tawba laa yuridu biha illa wajha allah mbokk yi sart bu njëkk pour nga dellu ci yàlla pour nga tuub sart bu ci njëkk mooy nga sellal sa digganteeg sa borom bul wax ne rek man del déedéet da ngay sellal sa dellu ci yàlla da nga koy sellal ñu bare bari boo leen ne ndax tuub nga ñu ne waaw limaza li annani taraktu lmaasi limaza xawfan min rijali surta am ñoo xam dañuy tuub hé booy man bàyyi naa jaay bon quoi hé booy bàyyi naa bon bi bàyyi naa yamba bi bàyyi naa drogue bi bàyyi naa bàyyi naa léeg-léeg nit ne man tuub naa lu tax ndax dama ragal ñu jàpp ma kooku tuubul tuub naa bàyyi naa lii lu tax damaa ragal ñu jàpp ma damaa ragal ñu gis ma damaa ragal feeñ damaa ragal nangam tuuboo loolu du tuub tuub da nga koy bàyyi ngir yàlla ragal alkaati bu taxee nga tuub tuuboo bàyyi naa naan sàngara lu tax ndax kat damay bañ màndi waa koñ bi tuuboo tuuboo bàyyi naa njaaloo lu tax damay ragal am sida tuuboo sida nga ragal da ngay def ngir yàlla loolu mooy ar rujuu ila allah mbir mi bi nga koy bàyyi kan moo tax yàlla mooy li waa ndaw si defoon li waa ji defoon ak ndaw si guddi ñoom ñaar rek waa ji tëj fenêtre bi wàcce rido bi tëj buntu bi wàcce rido bi simmeeku simmi ndaw si dem ba yëg ci kawam ndaw si ne ko doo xool sama digganteeg yow ak yàlla mu tiit taxawaat daal di sol ay yéreem loolu mooy tuub nga bàyyi ko ngir yàlla waaye damaa ragal sida damaa ragal police yi damaa rus waa koñ bi xaw ma nu may def sama papa xaw ma nu may def sama yaay loolu du tuub tuuboo yow loolu dafa am loo ragal rek ñooñu bis boo leen gisatul rek nga delluwaat waaye ki nga xam ne moom yàllaa tax day xam ne yàllaa ngi fi da koy bàyyi ngir yàlla loolu mooy première sart saaniyan an yakuna sadiqan fi tawbati fala yaqul tubtu na tuub tuub bu sell tuub bu dëgg bu mu tuub tuubu làmmiñ tawbatul lisaan déedéet tuubu làmmiñ rek mooy li xew léegi waaw koo ne tuubal mu ne saafaru laay loolu du tuub da ngay tuub tuubu xol bu dëggu ci yàlla balaa ñuy tëj buntu bi waaw waaye tuubu làmmiñ tuub boo xam ne vendredi nga dem juma samedi nga baali waaw vendredi nga gis gaa yëpp sol ay koppati sol ay simis àlla ji weex koo xam ne salaamaaleykum samedi nga gis waa ji fële kenn dootoo ko xàmmee ki nga gisoon jàkka ja samedi boo ko gisee doo ko xàmmee loolu du tuub waaw borom xam-xam yi ne nañ tawbatu nasuux mi ngi mel ne ku solul dàll mu dëgg ci xalu safara ku solul dàll fi mu nekk ci ñun ñii dëgg xalu safara nu muy def bu tëbee ndax da ko ciy tegaat loolu mooy tawbatu nasuux doo ko ci tegaat mukk loolu mooy bàyyi bakkaar ñetteel mooy an yatruka al maasiya fil xaal na nga bàyyi bakkaar bi ci saase soo ko doon def mooy waa ji takk lam dugg ci marché bi yonent bi fekk ko mu taxaw yonent bi ne ko asalaamaaleykum mu ne wa aleykum salaam yonent bi xam ne kii jullit la yonent bi dugal waxu ko dindil de yonent bi dafa dugal loxoom rek ci lam bi daal di xëcc sànni ko ne ko walaw mitta wa haza fi yadika ma aflahta abadan wallahi maa ngi giñ ci màggaay yàlla boo deewaale woon ak lam bi doo dugg aljanna yonent bi daal di romb waa ji dem nit ñi ne ko yonent bi dem na jëlal salam o yehi ƴettu jawama o yehi o mona yaha ƴettu jawama mu ne leen yonent bi du tekki safara sama loxo ma koy takkaat nelaɗo ittata jaygol e junggam ngo mbiɗa haɓɓita ɗum ko jaygol itta ɗon ñaata sénégalais ñoo takkalam ci xale yu góor yi ñaata ñaata xale yu góor ñooy takk ay jaaro nopp ñaata xale yu góor ñooy wàcc tubéy ñaata xale yu jigéen ñooy génne seen ween waay waay weenu jigéen wala ween ween moo tax ween yi génn nit ku baax du ci nàmp mukk lan moo ciy nàmp mbër rappeur simbkat buubu golo gaynde kankurang càkkaaba loolu rek la jigéen ñi jur tax parce que ween yi ñooy génn ween yi nampal yonent yi ah dem leen ngeen laaj El Hadji Omar Fouti yu Adama Ayse dem leen ngeen laaj maam Jaara Cheikh Ahmadou Bamba dem leen ngeen laaj maam Fawade Wele El Hadji Malick Sy ndax ñooñu ni ñi ñi mel la jigéen ñi mel lañ meloon ah jigéen ñii ndax ni jigéen ñee meloon ñii noonu lañ mel te nag li ci garaaw mooy ku ñoom ñooñu ñëpp nag ñii lañ gëm nag kooku ñaa ne barki sëñ jo barki alaaji Malik la ay feni kese dara yëpp ay feni kese maam jaara bu munul bu munul jàpp maam jaara bu dul muur kanamam bu dul muur yaramam ah gis nga wallahi maam jaara lañ ma tudde laa la wax loo ci jële ki ne laam bu mu yooyu maam jaara lan la wax ki ne laam bi mu yooyu maam jaara ma mësta julli mësta wirdi te ñaanul ndax wéetal borom bi moo ko way waaw léegi ni ñun ay way rek lañ ci am ay way rek te li gën a dangereux wala waykat day nekk ci biir soirée daane ana ñu ànd ak sëñ Touba nañ ñu kër sal nga gis nga ay na nii ku ànd ak sëñ Touba soirée ngay nekk grand théâtre lañ lay fekk ku ànd ak sëñ Touba grand théâtre lañ la war a fekk ku ànd ak El Hadj Malick grand théâtre lañ la war a fekk ana waa kër sëñ Touba nga gis ñu ne nii di ngolleeku ci biir bis ci biir tir bi nii nañ nañ wax dëgg yàlla bi nañ wax nit ñi nañ jaamu ji yàlla loolu mooy dëgg nañ leen jaamu ji yàlla bay caaxaan yi loolu mooy dëgg mbokk yi buñ ko ñemee lool la buñ ko ragalee lool la da ngay dégg ñi ñi ne nañ ko waxte dee ñun duñ ko waxte dee dañ koy waxte dund nañ góorgóorlu jaamu yàlla bàyyi caaxaan xam ne li ñuy def ay fo kese la te kuy fonag ba dugg fii allahu akbar di nga xam ne maa xalaq na samawati wal ard wa ma baynahuma laibin billahi wallahi kuy fo ba ñu génne la fii yóbbu ci morgue bee yóbbu la ci armeel yi gas ba mu xóot ñu suul la nit ñi ñibbisi li nga xam ne yàlla waxul woon pije pije aayo on alaay alquran de pije wala na ne alquran ana imam bi ana imam jàkka ji dama koy laaj ndax aaya pije mu ngi ci aaya mu ngi ci alquran amu fa xam nga lan moo fa nekk ibudullah ma lakum min ilahin xayru xam nga lu fa nekk wa ma xalaqtul jinna wal ins xam nga lu fa nekk wa laqad baasna fi kulli ummatin rasul lu tax an ibudullah loolu moo fa nekk nañ leen góorgóorlu mbokk yi ñeenteel an yazama al allah an yauda loolu la Laxdari di wax wa suratu tawba an nadamu ala ma faat wan niya ala yauda ila zambin fi ma baqiya min umrihi wa an yatruka al maasiya fi saatiha in kaana loolu la Laxdari jàngale loolu dong la seex bi indiwaat yi loolu mooy sarti tuub nga dogu wax na ko léegi al azmu wal hazmu wax na ko léegi mooy dogu te takku dogu gars yi xoolal gars yi ni ñuy dogoo di dem ci géej gi di dee da ngay dégg ñu ne barsa wala barsaq di dogu di dee ci lan ci ay caaxaan noonu ngay waxee ne dogu dee wala kee taxaw naan alal ju bari wala bàmmeel bu sori tee ngaa dogu noonu ci jaamu yàlla te ndeysaan sunu jaamu yàlla yëpp luñ ñu ci dig xaalis dañ koy mokkal dañ koy mën kenn ci ñun fii tey buñ ko ne woon ñaan bii bis boo ko ñaanee doo ñàkk xaalis bis bu nekk yaa ngeeg dix mille da nga gis waa ji mokkal ñaan bi sunu benn booy dafa xaw a feebar moor wan moor wan day ñëw ne la day ñëw ne la kaay am naa benn ñaan boo xam ne boo la ko joxee rek da ngay am xaalis ma ne ko moor te nga ko jox sa bopp mu ne xam nga Saad ibn Abi Waqaas ñaanu xaas ñaanu xaas Saad ibn Abi Waqaas da nga may jox dara rek ba ma joxee rek ma jox la dañ ko waa moor man dinaa la jox d'accord naa dinaa la jox waa nag léegi yow lu tax ñaan boobu defoo ko pour nga am xaalis ndeysaan Saad ibn Abi Waqaas moo gisoon yonent bi ñaan rek yàlla may ko yàlla yonent bi moo yëkkati woon loxo rek daan ne allahumma hdi umma saad yàlla yal na nga jubal yaayi saad saad dem seen kër rek yaay ji ne ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah rek saad kontaan daw ñëw ci yonent bi ne ko yonent gis naa ñaan nga yàlla nangu damaa bëgg man tamit nga ñaanal ma su ma ñaanee rek yàlla nangu yàlla ne ko yaa sa yonent bi ne ko saad a turidu an takuna mustajabu daawa mu ne naam mu ne ko atib mata amak li ngay lekk na dagan li ngay lekk na dagan da ngay gis ku woor ba ngoon di doge cigarette woor ba ngoon bi waa ji ne allahumma laka sumtu rek nee na cigarette bi taf commencé fii booy journée bi taw day taw la day commencé mais naka la nit di woore ba ngoon di dogelu araam uski ustaas wax na ko léegi ay cigarette yàlla indi na la buntu pour nga bàyyi ko xoolal fajar ba léegi toxoo kon kay jaar fa mais non non parce que seytaane mooy ñëw ne la déedéet booy demal nga jënd nga ñëw jënd sex bi nga sexee mu ne la jëlal almet bi taalal nga taal almet bi ne tos kare tos kare lay wax tos kare nga teg ne yàlla mooy naa la fur yàlla ne yaa ko wax nga ni sikki sàkk nekku ci mu ne la signal nga ni nii mu ne la tamponel nga teg ci suuf écrasé bindal tur bi cigarette bind ko ci arab cigarette siin bi lan la sikk siin bi sikk la kaaf gi kéeféer raa gi reewande yaa gi yàq taa gi tësay bokk bind leen ko cigarette bind leen siin gi sikk la kaaf gi kéeféer la raa gi reewande yaa gi yàq taa gi të say bokk ku tëwul say bokk doo ko def ku ko fi def da ngaa nëbbutu sa papa ba màgg paa yi tux fi yëpp dañ doon nëbbutu seen papa ak mère yi tux fële ab jigéen ñi léegi dañuy tux di jigéen ñi dañuy tux gis na waaw voilà oustaz nee na esthétique yi mujj yi dañu ne jigéen ñi tux léegi ñoo ëpp góor ñi waxuma sax jigéen ñi tux cigarette waaye jigéen ñi pon la ñuy tux naan moo gën a dëgër bu dëgër bi nañ ko góoral waaw dañ koy góoral fu ñu jëm su jigéen demee bay tux allahu akbar ay waay waa Sénégal yéen waa Sénégal te ñu dellu ci yàlla mbokk yi xaamis juróomeel sart ci tuub an yandama ala wuqiihi fil muxaalafa nit bu defee bàkkaar na gaaw na gaaw tuub rëccu bu doon lu mu def ci boppam la na ko dindi ñaata jigéen ngeen xam yu deewaale mees ñaata benn jigéen buy sang jigéen ñi Tuubaa nee na léeg-léeg ñu ñëw ne eh waay soxna si dindil ñu mees yi léeg-léeg ñu ne dindil ñu émaay bi mu ne waaye man xeesal bee ma jaaxal du dañ mukk yàlla bi mu lay bind yaa ngi ñuul nga dem alaxira yaa ngi xees te yàlla wax na ci alquran ya ayyuha al insaan ma garraka bi rabbika alkarim alladi xalaqaka fa sawaaka fa adalak fi ay suratin ma sha yàlla nee na ni ma ni nga mel ni nga mel ñu ne ah mu ne man la neex fi ay suura maasa rakabak ni nga mel man yàlla man noonu man noonu na ma neexee ma def la noonu yow nga ni doo mel noonu foog nga xees foog nga am kawar gu gudd foog nga njool foog nga génne sa yaram foog nga nekk tubaab au lieu nga toppandoo jullit yi nga ne man damaa bëgg a toppandoo tubaab ngay changé sa yaram di changé ba changé sax Aïcha biñ la tuddoon wala Khadija biñ la tudde woon wala Mariama biñ la tudde woon wala Moustapha biñ la tudde woon wala Malik biñ la tudde woon wala Muhammad biñ la tudde woon yëpp nga changé ko noo tudd léegi non F laa tudd F F ki tuddoon Malik daan ne man léegi milk laa tudd quoi milk xanaa léegi papa ji sax danaan to milk woni doomu ma la oustaz doomu ma la dafa am benn paa mu ne Vélingara léegi. moom bu amee doom.
ah day laaj xale yi.
waaw nan laa koy tuddee ah dégg ngeen suñu papa bi toog nee na weli ngara mu ne boo amee doom da ngay wax xale góor yi ne kii nan laa koy tuddee balaa ñuy changer tur bi ndax da ngay am Muhammad ñu ne M Muha Fatima ñu ne F Khadija ñu ne Dixa milk xoola xoola Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul la ñuy wax xaa xaa koo dégg ñu ne xaa ci Sénégal xaadim rasul lañ ko tuddee allahu akbar kon léegi lan lañ dese lan lañ dese kon mbokk julit yi euh, juróomeel mooy réccu bàkkaar yi juróom benneel mooy yow mi bëgg a dellu ci yàlla alalu jàmbur yi nga yor toog ki delloo ko doo sàcc ba giijal nag ne xaaral ma tuub waaw jël alalu nit ñi dugg ci jàkka yi yóbbu moket yi yóbbu rajo yi def lu la neex tëb miiru kër yi rey xaru nit ñi jaay ba am alal nag léegi nag ne xaaral ma tuub déedéet dañ lay delloo alalu nit ñi nga jëloon delloo ko wala nga dem baalu ji leen àq wa mimma yuinu aydan ala tawba al ibt al ibt al ibtiaad an shuraka il jaraim wa asdiqa il ghafla bokk na ci li dimbali nit su tuubee ba nga dellu ci yàlla mooy mu sori band yi mu doon àndal caaxaankat yi nga doon àndal bàyyi leen fu bon fi nga doon dem bàyyi ko munoo tuub am xarit yu bon benn waay dafa tuub tuub bu sell di jàng alquran dem jàkk di julli xarit yi ne déedéet kii du kii bu leen ko seetaan ci lii waay nañ ko jëliwaat indiwaat ko ci see bi waaw see bi nañ ko branché waat ñu topp waa ji topp waa ji topp waa ji waa ji bañ ñu def réunion pour génne waa ji ci lu baax réunion pour trouver solution nu ñuy génne waa ji ci mbaax benn waay ne dañ koy dañuy génn sorti nañ ko génne sorti buñ génnee sorti ñu piégé ko ñu boole kook ay xale yu jigéen ñu ñëw ci moom ne ko dañuy dem sorti mu ne waaw léegi bu ngeen dem man nag lu da ngeen bëgg ma dem ñu ne ko waaw mu ne man la yéen da ngeen dof ñu ne ko dañoo bëgg suñ demee nga ñuy waar nga nekk suñu imaam nga ñuy jàngal xam nga li ñu wax rafet na mu jàpp ne moom see acca bismillah ñu jël si jaada yi def ci oto yi départ ndeysaan nekkee dañ koo gasal kàmb ndeysaan ñu yegg si rek premier hôtel bi ñu dal ñu ne ko fii mooy sa néeg mu dugg ñu tas néeg yi mu dugg rek fekk fa xale bu jigéen bu def yaramu neen rek kooku tëj buntu bi ne ko soo waxee rek ma yuuxu nit ñi ñëw ñu xam ne yaa ma fi indi yow laa fi nekkaloon nga naan da ngaa tuub tuuboo dara bandi nga mu tiit mu wax lu nekk ndaw si ne ko mu il faut nga sëy ak man mu ne waaw ndaw si dinaa def lépp waaye damaa bëgg kon nga noppi bul wax kenn dara après nga ubbi bunt bi ma génn fii ndaw si ne ko waaw mu sëy ak ndaw si ndaw si ne ko foog nga naan sàngara ubbi frigo bi indi mu naan mu naan ndaw si di ko jox muy naan ndaw si di ko jox muy naan ba mu màndi ba xamatul fu mu nekk ndaw si bàyyi ko ci lal bi dem di fëggi xaritam yi mu àndaloon di leen wax ne xaalis bi ngeen ma fayoon li ma doon def réussir naa sama liggéey kaay leen ngeen fay ma sama xaalis ba ñoom ñoom ñu dajaloo ndeysaan nag di ree nag di xaqataay ñoom ñëpp ñu ñëw ubbi buntu bi ñu gis ko mu ngi tëdd ñu ñëw nag gis ko ni ko ni ko ndaw si futtee ni ko yaayam juree ñu wëlbati ko rek fekk dee na bu yàgg noonu la waajooju deewee noonu lañ ko alagee noonu lañ ko loree mu dem ci yàlla yóbbaale ay bàkkaar ca tuuboon na ndax ay xarit yu bon ku tuub da ngay bàyyi xarit yu bon da ngay sori nit ñu bon ñi ñaareel bi mooy al ijtihaad fi taxyiril bial maasiya li anna kullu ma fiha yuzakkiruka bil maasi soo tuubee da ngay sori place bi nga doon defee lu bon gis ngeen waajooju bi mu ñëw ci borom xam-xam bi ne ko damaa rey ñaata nit 99 personnes laa rey téeméer bu manqué benn mu ne sëriñ bi ndax su ma tuubee yàlla dina ma baal mu ne déedéet mu rey ko mu nekk ñaata téeméer mu dem ci keneen mu ne ko damaa reyoon juróom-ñeent fukki nit ak juróom-ñeent ma laajte ndax su ma tuubee yàlla dina ma baal ñu ne ma déedéet ma rey ki ma ko wax ma ñëw ci yow ndax su ma tuubee yàlla dina ma baal kooku ne ko waaw hadis bi boo koy wax yenn saa yi boo waxee fii nit ñi dañuy ree dañu yaakaar ne waa jooju dafa ragal ragalul de dafa xam lan mooy sarti tuub ku njëkk ki mu demoon lan la alim ku mujj ki mu dem lan la faqih ñaar ñooñu duñu benn fa rubba muballighin aw amina samia nit dana jàng yenn saa yi ba nekk borom xam-xam fekk déggul li mu jàng nga gis faqih dégg hadis bi xam li ko te waa ji moo ko raw moo tax mu ne ko sart bi mooy da ngay génn dëkk bi nga nekkoon foog nga changé milieu waa ji bi muy changé milieu di génn dëkk ba di dem jëm dëkk ba mu jëm balaa muy yegg mu dee ci digg bi ñu gis malaaka jóge aljanna malaaka jóge safara ñu koy xëccoo ñi ne safara la jëm ñi ne ajjana la jëm ñu koy xëccoo yàlla yónni benn malaaka na dem atte leen nan la leen atte mu ne natt leen fi mu jóge ak fi mu jëm fan la gën a jege su fekkee fi mu jóge la gën a jege ngeen jox ko malaaka yi safara yi ñëbbu ko safara su fekkee dëkk ba mu jëm la gën a jege yàlla fay na ko yéeneem tuub na ñu jox ko malaaka yi aljanna ñu yóbbu ko aljanna ba ñu nattee fan la gën a jege mooy fa mu jëm mu daal dem aljanna kon ku tuub da ngay changé li ngay njëkk a changé mooy yëre yi nga doon solo da ngay gis jigéen boo xam ne nee na day sellal da yenn saa yi damay gis xale bu jigéen koñ ba mu muur bopp bi muur bopp bi de bàyyi tànk yi ci suuf su ma rusul woon sax damay jaar ci digg bi rek ndax benn xale bu jigéen moom dafa def yaramu neen ba pare muur bopp bi ma ne ko bala ngay muur bopp kay muur nooy muuree bopp bi muuroo sa awra ci suuf naka nga naan damay sellal sa yaram a ngi ci biti lan mooy sellal tey xale yi koo gis day kolu waaye xoola kol yi amul benn njëriñ kol yi dara baaxu ci xoola meer yi ngay gis nii ñu ci bëri dañ naan damay sellal man kay léegi noo ko gisee tey mu ne man kay ah xoolal waaye bàyyi ko ba mu yegg ci musique bi léegi mu sànni kol gi daw dugg ci ci lang gi daal ne mag buur la lu mu def yàlla baal ko ko mbokk yi soo tuubee da ngay changé yére yi nga doon sol bu ko solati photo yi nga yoroon da nga koy lakk da ngay gis koo xam ne dafa tuub ba pare denc photo yi ba mu rafet def ko ci benn album denc ku ñëw mu ne la xoolal ma xool ma booy bi ma ci tollee xoolal tuuboo soo tuubee da ngay lakk photo yi ñetteel mooy al ijtihad fil bahsi an rifaq yuzakkirunaka billah soo tuubee da ngay dem nga wëri gaa yu baax yoo xam ne saa yoo leen gisee sa xel dem ci yàlla yàlla dana woon yonent bi ulaika allazina hada allah fa bi hudahum iqtadi yàlla dafa dajale yonent yëpp ci kanamu Seydina Muhammad ne ko gaa yu baax yaa ngi ni de soo bëggee baax toppal ñii ulaika allazina hada allah ñee ngay gis ibrahim moussa isa nuh yusuf suleyman zakariya gaa yu baax yaa ngi nii ulaika allazina hada allah fa bi hudahum iqtadi yow muhammad boo bëggee baax jaaral ci yoonu gaa yi kon ku bëgg a baax yoonu gaa yaa ngi noonu waaye nga bëgg a baax nga jaar ci yoonu ay balla gay ak ay firaaw naak ay messiyeeg wax leen wax leen tur yi mu ñëw génne leen ma tur yi loolu nga ne da ngaa bëgg a baax ba pare topp ci ñooñu yenn saa yi nga dugg benn néeg benn waaye boo xam ne ndeysaan nee na du jug ci jàkk ji waaye boo duggee ñoom messiyeeg ñoom Kumba Gawloog ñoom Baaba Maalak ah kala ko kala ko seernaaɓe ɓe mbaɗno bammal bonni hande haalpularen bammal woni annabi maɓɓe ndeysan demb aka aka demb demb do gis tukulor bu jigéen bu sol pantalon demb laa wax de demb hanki hanki ah baba ah tey koy koy seewo min ngoni nañu leen ragal yàlla delluwaat jaamu sunu boroom waxtaan bi incha allah mbokk yi maa ngi koy tënk pour bàyyi question yi ak sunu kilifa yi li ci li ci ñaaw ci ay kàddu maa ngi koy jéggulu doomu aadama rek moo doon wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu
waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh
saïd li saïdou li aɗa anndi no tomi muli salamualeykum waaw gonnoɗo e quartier mon on woni babam komi tanum calki hawa
comme bam
machallah a mbartami huɗum bab tan jibinimi bana nanɗo may jom inchallah firmata ɗo omon omon yembal way ɗo seeɗa noon baba no mbaɗɗa indema sambas
eyi Koñu jubusi question yi.
lay quartier Question yi dafa am ñaari xaaj.
enen fila oɗo daga am ñaari mawdu la defoon sànq dafa xool question mawdu bu njëkk bi ñoo ngi fi. question mawdu ñaari bi tamit ñoo ngi fi.
jarama jarama miñe ko joginoɗo galle saka souleymane bal waaw may leen Say- di Saydou Ly.
may leen di dugg rek.
on innirama kon euh, oustaz Amadou oustaz Amadou Sëbëri bu njëkk nga am ay question parce que am na question yi desul mawdu bu on innirami saydouli oɗon innirami
komin mbaña gonga baboyam gonga gonga Alors, euh, kii dafa laaj.
litarallah Euh, kii wàllu koor bi.
lisan lisan jarama eyi ahi
ci wàllu koor gi ci Maodo mu njëkk bi assalamu aleykum ki dafa laaj mu ne lan mooy Jazakallah khairan.
àtte nit kuy woor bëccëg bi barakallahu fik alhamdulillah nit koo xam ne day woor bëccëg bi yëpp waaye du julli lan mooy àtte salaamaaleykum wa rahmatulah wallahi mawɗum baba yettare allah no fewi alhamdulillah alhamdulillah mawɗum mawɗum yettare allah no fewi même ko laaj si boppam mun na ko toog ala ala mi yeeɗa yattaw fo nenam tag yahata to gammu gammu ceerno kodde
mooy dem ba bokk ci suñu ceerno kodde
an yakuna muslima ndeysan kon ku jël ku bàyyi wawa julli moom wallahi daara bàyyi gammu fof noon omo yaha min keblanamo o yaha kono ɗeɗo bal oɗo kam o jogorani yaade komin yahata par ce que o sellani tew tew mawni tagi mi wonmi yo jooɗane o faɗami wala ya inchallah inchallah wala inchallah koo xam ne inchallah inchallah day woo waaye Jazakallah khair.
xamoon rek lu muy sol ak lu muy wax lu muy toog day def benn place yi mbedd yeeg dina yeeg ñoom ñoom gonga baboyam gonga gonga li muy woor gonga jotewul ak dara li mu sol loolu bàkkaar la mais bàkkaar boobu nag day tax su demee ba ngoon mooy li yonent bi wax bëri na ko woor suba ba ngoon amul dara lu dul xiif ak mar moom xiif ak mar laa am ndax dafa bàyyi sart yi nga xam ne moom mooy muur yaramam loolu bàkkaaru boppam la ndax nit su wooree ba ngoon fekk ay yére matul est-ce que dañ ko wax mu fay koor gi Mhm.
du fay koor gi koor gi mat na mi ngi mel ne li lex dañuy wax léeg-léeg dafa am loo xam ne benn jaamu yàlla boo xam ne nga def bàkkaar boo xam ne jotewul dara jaamu yàlla bi. moom du jote dara jaamu yàlla sa bàkkaar boo xam ne lay bindal. waaw jërëjëf. mu ne lan mooy atte ki nga xam ne dafa wóccu bëccëgu koor ndax day continuer koor gi wala da koy dog. su fekkee teyu ko dara war ko su fekkee boo ko tey koor gi yàqu la. mu ne est-ce que am na ñaan gi ñuy ñaan balaa ñoo dogu ak ban la. waaw ñaan bi am na ñaan bu siiw boobu allahumma laka suuf bi ko amoon donte ne am na ay benn benn borom xam-xam yi ko jam. waaye amul nag li ko tere ñàkkul leen ndax am na li ko rëgër. waaw mu ne booy dog ndax moo gën ci nga njëkk kaa dogee. tànnaar ba. boo amul.
nga
boo amul. nga seetloo rek. jërëjëf. aywa mu ne. ki wóor koo xam ne wóor bi nga wóor wóoru ñàkk pexe la day bañ waa koy ñu ne ko kii wóor. loolu gis tën la. atem amul koor. mu ne ndax hadis bi wér na. mu ne laa yadxulul jannata wala du zina wala waaliduhu wérul. lii question bi dafa ñëw ci wàllu nodd. mu ne doomu njaaloo du dugg aljanna moom ak papaam. hadis boobu wérul. doomu njaaloo day nekk jullit day jiite ci masa Maliki nag mënul nekk imam ratib mais mën na nag nekk jullit di jiite mais ci masab Malik du nekk imam ratib mais soo demee ci masab Hanbali def mën na nekk imam ratib soo demee ci ilaamul waqil bu Ibn Qayyim al-Jawzi saxal na lool asalaamaaleykum wa rahmatullah aywa lii ci wàllu noddu la dañoo warante kii ne bu ñu noddu dañoo war a wax ashhadu anna muhammadan rasulullah kii ne ko dañ naan ashhadu anna muhammadan rasulullah loolu moom loolu ñàkk dégg arab la parce que foofu foofu ma wasl la anna muhammadan ra darra dañoo bu dan parce que foofu kenn du fa taxaw foofu du taxawaay comme da ngay jokk da ngay continuer mi ngi mel na ci alxuraan jàng nañu lu ñu tuddee idgham ak izhar ak ikhfa ak ikhla loolu dafay am sooy wax arab waqf dafay am donc foofu ashadu anna muhammadan ra darra du ñu wax muhammadan rasulullah kon sidda boobu nekk ci daal bi ñoo koy jàngee. d'accord question bi des ci wàllu koor gi mu ne koo xam ne dafa dem ba ñuy waaj ko comme jamono ji règle dab ko ak tes journée boobu nan la. jéem koor gi yàqu na day aywa kon question yi des oustaz moo ko moom. ngeen jéggal ma man maa doon gàttal tontu yi.
te déedéet jox ko leen mu tontu. déedéet déedéet déedéet mu ko tontu. jërëjëf aywa. aywa kon oustaz ñu ne am na beneen question buy soxna si dafa nekkoon en état koor bi lay passé. koor gi ñëw fekk ko muy nampal. wóorul bële. te wóorul bi lan mooy atte bi.
ñaari weer yu koor ñu ngi koy xaar yi mu war a fay.
waaw
su su gënee dem tamit noonu rek parce que bi mu woorul bële bi mu demee ba ngant bi ko tere woon woor jeex dafa war a fay comme seetaan na nag bañ a woor bañ a woor ba bi dugaat su woorul tamit beneen koor rek moo fay nekkaat te daf koy fay loolu moom bu yóbbu mu jóg ci depuis léegi.
kii dafa laaj mu ne. sànq wax nañ ci waxu Firawna mais bu ñu seetloo Égypte seen équipe nationale bi les pharaons la ñu di wax mu ne loolu lan la joteeg ci wàllu ci wàllu diine.
loolu amul relation mu ngi mel ne fii rek sunu gaynde yi ni ñu leen tuddee sunu équipe nationale lu ñu leen tuddee.
Lion.
est-ce que ay Lion lañ. jeex na tàkk.
mu ne lan moo tax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tere gaaw a mer.
parce que musiba lay indi mooy tas àdduna waa ji ba mu ñëwee ci yonente bi saa sallam ne ko aw si ni ya rasulallah mu ne ko laa tax dab fa karrara miraaran qaala laa tax dab bal sax def ko ne laysa sadidu bi sura innama sadidu man yamliku nafsahu indal ghadab jàmbaar nekkul ci bëre jàmbaar nekkul mën nit ñi di leen yenu di dóor ci suuf jàmbaar mooy nga mer mën a téye sa bopp boo doo def njaaxum waaw soo mere nga téye sa bopp yonent bi ne soo mere fekkoon nga taxaw toogal boo toogee demul tëddal boo tëddee demul demal nga jàpp ndax seytaane la te seytaane safara la jëm te safara ndox moo koy fay moo tax su lu ëpp soo meree boo jàppee rek fiix ku nekk na ko essayé soo meree rek jël sa tara nga jàpp da ngay fiix normal waaw jërëjëf mu ne lan mooy àttee surnom comme li nga leen waxtaan surnom baaxul alquran moo ko tere wala tanabazu bil alqab bi sa ismul fusuq baada al iman wa man lam yatub képp ku fekk ku tudd Mouhamed nga naan ko Lemzo am nga bàkkaar bu rëy képp ku fekk ku tudd Moustapha nga naan ko Taf am nga bàkkaar te yàlla daf ko tere dafa ne bu leen ko wax yàlla nee na képp ku dégg loolu tuuboo yow tooñkat nga beneen bi mooy tur bu rafet yonent bi daf ko bëggoon ba pare même tur bi lu su rafetee rek dañoo bëgg soo koy woo nga neexal ko xam ngeen Aïcha dafa neex waaye yonent bi da doon toog ba ci àgg mu bëgg a neexal Aïcha mu ne ko yaa Aïcha yéen doon neexal tur kon nag jullit dañ ko war a woo ci tur bu rafet
aywa mu ne lan mooy àttee sàkku xam-xam ak est-ce que nit ki dana am aas bu ñu naan ne man paas naa fi may jàngee
xam-xam amul âge boo xam ne nit dina ko paase yonent bi bi muy jàng ñaata at la am
waaw takk na soxna yor kër yàlla ne ko demal nga jàngi beneen bi mooy diine bi ku ko bëgg a dund foog nga jàng man arada dunya fa alayhi wa man arada al axira fa alayhi wa man arada al ilm fa alayhi bil quran wa man arada quran fa wa man arafa quran arafa rabba wa man arafa rabba daa ilayhi wa man ahsanu qawlan mimman daa ila allah wa amila salihan wa qala innani min al muslimin alquran baat bi ci njëkk a wàcc lan la iqra iqra mooy lan jàngal kon nit day jàng bal sax yonent bi yàlla moo ko ne rabbi zidni ilman kon jullit dafa war a jàng xam-xam amul âge minal mahdi ilal lahdi fi nga juddoo ba fi ngay deewee bis bu nekk da ngaa war a jàng bis bu nekk da ngaa war a yokk bis bu nekk ba keroog ngay dugg bàmmeel
aywa kon daanaka question yi fi jot na yegg si kii na mot na kon li desoon si suñ programme mooy waaw bu dee am na ay yeneen asatida yu bugg a taal yëpp maa ngi gis ci assistance bi Oustaz Abdoulaye Ali bu ñàkk nga am lu ci sànni wala yeneen oustaz yi fi nekk suñu papa Oustaz Guèye bismillah bismillah ak kilifa yi yëpp bu ci am kàddu boo ci sànni rek bismillah
salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh sa dagit de allah juuɗenaaɗo sallllahu alayhi wa sallam eɗen calmini denndaangal banndiraaɓe tawaɓe ɗo E, eɗen jetta allah taweede nde ɗo jonde E, nde tawno ko jonde ɓeydaare E, juulɓe alaa ko jogii so wonaa diine mumen irin ɗum ene kalda diine mumen noon ɓen no goni ko e dewal allah e musidɗo o haali naane wonde yimɓe ɓe alaa ko ɓe tagira so wonaa yeɓe ndaw allah tabaraka wa taala ɗum ɗon noon haade ko ɗum ɓe tagira bismillah e poti wattude haa ɗille ko ɓe tagira ko allo gooto jeyaɓe allah Naam.
moƴƴuɓe o wi Waaw, kase maa ngi lay ziar.
weeni maawuji ɗiɗi e ndeer alqur'an waaw waaw waaw waaw waaw dama nekk ci benn conférence waaw o wi allah wi wona halakul jinna wal insa illa liyabudun allah wi wona min dabbatin illa ala llahi risquha allah tagirani yimɓe ɓe so wona hen e ndewmo kala kala neɗɗo walla kala ko jogii fittani kala ko ruɗat e dow leydi ko allah jogii gurdam mum allah jogii arsiqi mum o wi wa- haare ko noon noon ko tagira ko ɗum o waɗata ko jogana ko ko yata o ƴiwoya ɗum neɗɗo so a lomtama e hunde jarani ko ari ha ɗaɓɓoya ɗum neɗɗo ma dama o wuuri allah ene jogino e wuuriram ko allah safi e dow makko ko hono yo rewru kanko yo pero toɓɓirolu kadi hunde wawa seddude gaga gandal En- enen wonɓe ɗo ɓe kala goto nan ɗo komo reeni ko ganduɗa taw ko haalte ko no ustage winani ni taw aɗa haalnande ɗum ni taw ko engrais walla ko taw aɗa haalnande ɗum kono so hoddirama kaseɗe o duppama on wawi rewde hen haalama hay ko hongan ko wawi homdude hunde makko kono wiya wawa fatiha ɗum ene heftini e juulɓe enen juulɓe batten sabillaji e koye men ganden ala wakkati ɗum ko wona diine o kadi enen fof eɗen poti wottade haqqillaji e mawɓe men ɓennuɓe woni honɗum kala hen goto e mabɓe ko enen puuti koye men kono hay goto e mabɓe kumtani en kala e mabɓe mo jaaɗa wuro ɗo sinci ɗo walla ɗo jeyaɗo sa yaltidema galle mum ko jama woni funnaki ɗum ko galleji diine ɗi fof fof fof fof haarani on noon wadde hollima ko noon poɗɗa waade neɗɗo alhaalima ɓuri wawde janguinde e konngol makko neɗɗo wonno waade oyi ko yawano jarani komo wima waani waani waani neɗɗo salliki mi yehi jama on juuldi jamma e ñalawma juuldel jooɗi fof onon juulda ceerno sa yiyani woto haqqille hoore ma ganduɗa kanko ɓuuri mo yiɗi mbaɗa ɓe keɗɗa hen mbasa hunde hoore ma kala ɗumen tumtuɗo hoore mum kañum tumti hoore mum kono kamɓe hay woto ɓe tumda hen eɗen mbawi mbati haqqillaji e koye men mbati haqqillaji e diine men ganden kala neɗɗo so tawi o maayi kanko hotoe gassa makko woto fewo rewa allah o jokka enɗam o toppiro diine makko o anda o ala ko o jogui so wona diine makko o yo allah wallu en yo allah newnu yo allah wallu sabu perdira hen on jaa fof musidɓe o kalno o eddina koye allah hokku en noppi ɗiɗi e meyre kono kam enani koye e naa yo allah hokku en huurde e gollorede e ɗaɗɗude ko haala sayyidina muhammad
Shukran. balaa ñoo jàll ñu am benn conférence bu ñu ci yëgle bi al oustaz Seyd li war a def xëy na le 11 bi di ñëw incha allah xoolee si seen seize pour bi Pikine
ñaar la ñaari conférence Assalamualaikum warahmatullahi Eh, Ustaz Mio Rapat Dari Eko Lain hal Olo Izin hal Wajati hal Dia lo Jadi mana itu Dan lo kata ini Bagi siapa nak berbicara ñoom yàlla amin amin Wato lo kopiam ko ɓi tawi mo jibru o andiraɗo e legale to wenni nden ko mamma tati galluɗo taane en e jaate en wonno ene foti ganduɗa wanno ko ɓiyam allah rokki min en dañi gandu mbaɗen emin jetti hen allah e no gandu noon ɗum ɗo koko ɓeydo yo allah ɓeydu ɗum ha heewa yo allah rokku en tawkone en en wuuri barka ceernamon tijani barka mahamad oɗo oɗo wutat kande omo teeñi min ɗo o tawi min omo wonde aɗa duuɓi duuɓi min gondere koɗo hay huunde min meeɗani yiide makko wona diine lislaam o janggiiɗo sukaɓe leegal ngal o hokki min jam o meeɗani wadde ɗo huunde haa wiyen ɗum ɗo dewi waɗani ndeysaan meeɗani hay goto min komi jogii kadi ɓii ko walla kanko walla mana mana mo mo aragalam ene ñawde meeɗani alhamdulillahi rabbil alamin ɗum ɗo ko yettude allah alhamdulillah
kalle emin jetti allah emin jettuma kala baɗo holni o ko ɓeyduɗo wango alaɗo woni ɗo ko diina l'islam an ko ɗum ɓeydiɗanɗe ko diina l'islam alhamdulillah rabbil alamin jarama baba yam yàlla yowa moƴƴere jasakumllah khair alhamdulilah ñu yeggali conférence bi nga yëgle bii oustaz la def semaine bii di ñëw incha allah seen seize au Pilo Badiane Pikine mu ne école Yelli Yelli Baba ah Yelli Baba ah Yelli Badiane aywa mawdu bi mooy asawmu wa xaalu saalim conférence bis bis boobu ñaari conférence la waaw ci suba gi Medina la ci ngoon gi moo nekk bu Pikine boobu ok
assalamu aleykum mi salmini goto fof inde mum e yettode mum vraiment min beltima conférence mo oustas waɗi o caggal ɗum kadi min jetta oustas oɗo kadi minen kadi emin jogui kadi conférence mo ganduɗa kadi emin poti ɗum haalde minen poti wironade ɗum kadi waɗa conférence le 11 mai to ko siége amen yeli badia pikine 11 juin yeli badia pikin waɗata conférence o inchallah oustad alhaji seydi ly kono fof kadi min mbaɗen invite ala fof momin jejjitemo kala bawɗade tan bisimillah accir haji balɗal
ma ma ma leeral foofu rek mooy conférence dimanche boobu du dimanche la ñaari conférence la ci suba gi Medina lay nekk ba ma julli tisbaar ma doog a ñëw ci ñii pour ku bëgg a dem waaw Tilleen ñaari Medina ci suba gi foofu la ñu am conférence midi ba ñu julli tisbaar ba 3 heures incha allah ñu doog a ñëw ci mbokk yi pour ñu bëgg a dem incha allah.
aywa jërëjëf Sass. bu dee tamit am na ñeneen ñi ñu war a jël kàddu wala Amady umara yi ñoo ñu déggoon ay kàddu yu gërëm yi ñu war a gërëm ñëpp ñu fi teew. suñu ñaari ustaas yi ñoo ngi di sant di gërëm seen disponibilité. parce que dañ leen kaa wax rek wax dëgg yàlla jàppale ñu ci dara ñoo ngi leen di sant di leen gërëm waaye nag lépp dañ koy delloo kii. parce que wax dëgg yàlla ñun tey pour saa yàlla joxoon sa sëriñ ñu sañ leen joxoon ñu suñu sëriñ yi ñuy toog. kii moo ñu jàngal ñu. kon association Shababul Islam xale yëpp ñoo ngi sant di gërëm ñëpp ñu def déplacement ñëw si bis bi di ñaan yàlla yal na leen yàlla fay. di ñaan yàlla yal na leen yàlla fay sàkku ci ñoom tamit ñaan yàlla ñu ñaanal ñu yàlla dëgëral suñuy tànk. parce que dafa am lu bëri lañ bëgg a liggéey te ni ko Sass waxee ne seytaan dafa na dina toog ci yoon bi. kon ñoo ngi leen di ñaan ñoom tamit ñu ñaanal ñu yàlla musal ci seytaan boobu mu demee nii. di sant di gërëm tamit suñu waajur mbaalo ndax sànq wax dëgg yàlla dimbali ñu ñu bu baax. suñu papa mbaalo jàppale nañu sànq bu baax a baax boo sax xawee am tuuti rek daal di gërëm tamit waa quartier yi. luñ fi yëkkati rek ñoom ñëpp dañ ciy jàpp imaam yeeg délégué quartier ak ñi fi dëkk ñëpp dëkkandoo yëpp ñoo ngi leen di jégalu dem ci transement bi xëy na nit ki ñibbi si war a toog noppalu dimanche la am nga takk say rajo di wax dañ dañ leen koy jégalu rek liñ ci bëggoon nag mooy defar suñu papa yi bi déplacé rek nañ ñu ngi di ñaanal yàlla yàlla na yàlla dëgëral yokku wér gi yokku fan yi ñu yàgg ñoo gunge suñu yaay yi nekk fële tamit ñoo ngi leen di sant di leen gërëm bu baax yàlla na ne yàlla def ay ay xóot yi ñu bokk ci wóorul ay nii incha allah kontaan nañu baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Thank you.